Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci ndigalu sëriñ mouhamadou muntaxa mbàkke bachir xalif général des mourides ci ndigalu sëriñ siidi mbàkke xalifa cheikh abdoulahi lahad mbàkke sëriñ basiru mbàkke porte parole du xalif général des mourides mbokki 26e édition journée sant sëriñ abdoulahad mbàkke le 15 février lay doon ca touba beleel sëriñ moussa cuun yàgg di koy amal ngir nag sant si wasilam bi sëriñam bi léppam ci ndigalu sëriñ siidi abdoulahad mbàkke ren ji mu ni bis bi nag mi ngi ko parrainé monsieur matar ba ministre chef de cabinet du président Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké taxawaayam rafet loolu ku baax mu ni bis bi nag moom la ko parrainé di xaritam di léppam ak it kan monsieur Samba Ndiobène ministre de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire mu ni bis bi bisam la bokk na ci parrain yi moom it di kenn ci moom ba bokk na ci parrain yi Serigne Askia Touré conseiller du président Macky waaye tamit mi ngi ko parrainé monsieur Galoba ministre de la fonction publique et de moom ki nga xamante ni taxawaayam si réew mi ñëpp ràññee nañ ko taxawaay bu am solo si domaine bi ñu ko dénk di monsieur Pape Demba Bitèye directeur général de la Sénélec di xaritam di léppam waaye tamit fàttewul mu ni ah kenn si moom di monsieur le maire de Touba Abdoulahad Ka di baayam di léppam monsieur Mamadou Moustapha Ba ministre des finances et du budget mbokk bis bi nag Serigne Moussa Thioune mu ni mi ko dara jaale soxna Bali Mbacke Muntaxa ak sëriñam di waajuram di léppam sëriñ Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad mbokki bis bi nag sëriñ Moussa Thioune ko yëgal son excellence monsieur le président de la république du Sénégal Macky madame Marième Faye monsieur le premier ministre du Sénégal Amadou Ba monsieur Oumar ministre des forces armées monsieur Antoine Félix Diome ministre du commerce sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaïndé Fatma ministre conseiller sëriñ Bassirou Mbacke entreprise Serigne Modou Mbacké Bara Dolly conseil économique social et environnemental monsieur Isma Dioum ministre conseil honorable député Matar Diop Serigne Fallou président du conseil départemental de Mbacké Serigne Matar PDG Institut Kamal honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly honorable haut conseil des collectivités territoriales Aliou Sila soxna Fatou Bintou Pouy Yaay Pouy présidente mouvement ànd ak Yaay Pouy Fall Amadou soxna Mame Mariam Gaye moom responsable politique APR Cheikhouna Gaye mu ni mi ngi koy yëgal Cheikh Mbaye Gaye PDG EMG Serigne Cheikh Mbacké solution opérateur économique Bassirou Sy responsable politique PRP Déthié Fall PDG Cheikh Mbacké Lo Junior Serigne Mourtada Lo au maire si Touba mu ni mi ngi ko yëgal tout le personnel de la mairie de Touba teg ko loxo Pape du secrétaire général bi mbokk yi bis baa ngoog 26e édition sant Serigne Abdoulahad Mbacké si Belel mu ni dinañ am solo dinañu xëy jàng alxuraan cérémonie officielle mi ngi siy sàkku nag teewaayu ñëpp. maa loon